président Ablaye Wade tey jii sénégalais bu nekk war na ko delloon jukkal comme ni muy delloon jukkal le président Senghor le président Abdou Diouf ak moom mii aussi ñëw gën nekk xale euh, penser à sa jeunesse ba pare jël loolu jël président bi nga xam ni euh, mën naa wax ni si xolu sénégalais yi ces derniers temps moom ni ci gën nekk ci la bokk muy le président Ablaye Wade et je crois que le président Macky Sall fàttewul démb ndax bu fàtte woon démb tey jii du ko def ndax tey jii moom sax da koy wax ne na tey jii lu mu am yëpp président Ablaye Wade moom moo tax et aujourd'hui euh, franchement tey deselatul ko dara. ma gis ni tey en 1960 au nos jours ñu ngi am problème mu coupe d'Afrique nga yàgg koo wut ak sa ay moroom am ci fierté am ci su sunu borom dogal tey ñu am ko ren mu tabax stade bu mel nii pour Sénégal. lan ngay yokk ndaw yi ci wàllu muñ ak ngor ba yàlla dogal tey coupe du monde sax war fi mën ñëw. di di wax xale yi rek ni leen na lii mooy Sénégal ndax tey booy xool tey jii ñii ñu invité ñëpp muy ñoom jee Didier Drogba ñoom Samuel Eto'o ak ñoom tey jii euh, Okocha ñoom ñëpp bi ñu leen woowee en plus en peu de temps dañ leen woo ñoom ñëpp ni leen ñëw leen ñoom ñëpp fier ñëw fii et aujourd'hui li ñu wax tey jii ñoom ñëpp. man maa koy wax ci kaw nee nañu franchement votre président c'est un travailleur looloo tax ma ni xale yi tey jii ku ñu woo ni nu kaay leen ñu génn si mbir ñu yàq nanu tey jii lii du lu ñuy yàq nanu bàyyi yàq bi am ne nañ droit nag mer wax am nañ droit wax mer mais amuñu droit yàq ndax lu mel nii tey jii bii buñ ci amul ñaar wala ñett préparer jouer préparer organiser coupe d'Afrique fii suñu dëkk gañewaat ko ndax tey jii ñun dañu gagné ji coupe d'Afrique à l'étranger tey jii suñu bu buñ ko organiser on a quatre-vingt-dix pour cent de la gagné donc je crois que sénégalais li mu leen di wax rek moo di bu ñu yàq nañu xool nan la ñuy amee lu mel nii à Saint-Louis mel nii en Casamance ah, lu mel nii si yeneen région yi pour organiser la coupe d'Afrique incha allah